Salam mbokk yi di def comme ni ñu émission Cuisine Express tey ngi andi li nga euh, croquette de poisson croquette de poisson nag pour ñu ko poisson soxla li nga oignon tomate concentré parce que dañuy defar benn sauce rouge bu koy accompagner am nañu oignon vert persil euh, farine suñu épices de légumes tomate fraise.

suñu paree dañuy ñëw automatiquement ñu jël oignon bu doy jël persil ñu koy dagg parce que sinon boo koy lekk da lay jox arrière goût daal ciy def. ko defee ñu jël li nga xam ne mooy suñuy épices moom tamit daal di ciy def daal di def poivre daal di jël tuuti suza tuuti rek quelques pincées dañoo ko man tuuti rek moom tamit daal di yeggali mélange bi ni bu ñu defee tam ñu gis ni xaw na tooy tuuti ñu rajouté ci waat tuuti farine équivalent soup deux cuillères à soupe nga ciy def suñu faat si pare la mën nañu taal li nga xam ne mooy suñu gaz

exactement rek mën nañu commencer def li nga xam ne mooy boulettes yi mooy croquettes yi di taal suñu gaz directement ñu def li nga xam ne mooy suñu oignon daal di jël suñu tomate concentré damit découper ko en petit dé directement def ko fii ñu commencé doré

sauté nañu tamit tuuti macédoine de légumes am nañu fii tuuti laitue léegi nag dañuy ñëw rek daal di jël suñuy croquette nii rek daal di voilà daal di jël sauce bi teg ci benn rebord bi benn rebord bi ñu daal di jël suñuy légumes parce que légumes dafa am solo aussi ci organisme on bañ di ko fàtte suñuy togg jël suñuy tomate yoo xam dañ ko dagg en de loup di teg fii benn daal di tegaat fii benn su fekkee tamit euh, rondelle de citron aussi mën nga ko à côté plat bi mën na accompagner ak li nga euh, riz blanc mën nga ci def attiéké wala nga def li nga xamante euh, frites wala ay pommes sautées, ça dépend ci li nga bëgg mën na and ak lu nekk suñu croquette de poisson mu simple na sain na mën nga ko togg te doo am difficulté bon appétit à demain incha allah. pour faire say croquette de poisson di nga le poisson masse de légumes laitue tomate fraîche tomate concentrée persil coriandre oignon vert sel poivre ak tuuti farine.